le le vendredi wax ngeen def un rassemblement c'est pas la première fois ngeen ne da ngeen di wàcc ci mbedd mi et que ñu tere leen ko lan nga jàpp ni moo tax a chaque fois boo leen demander l'autorisation on vous le refuse. waa xam nga on a remarqué dernièrement euh, ci période yi ñu jógee euh, que systématiquement toutes les demandes d'autorisation de manifestation sont interdites lu tax on ne sait pas. première fois ñu interdiral ñu ko c'était euh, je pense su ma juumul à quelques semaines de la tabaski mm -hmm. et motif avancé bi parce que à l'époque c'est même euh, le le patronat qui était venu nous voir nous demander de surseoir aux manifestations parce que à l'époque effectivement l'économie et ñi nga xamante ni ñëpp ils de cette euh, de de de de cet événement de tabaski war cee am lu ñu yóbbu seen kër war cee am mën a jaay seen i xar ak yooyu. Mm-hmm. ñu demandé ñu à ce que ñu sursoir dans la période les les manifestations. Mm-hmm. seetlu nañu ni à l'époque ñoom loolu lañu joxoon comme euh, comme alibi euh, en parlant de de de de problème de sécurité et de problème de de circulation et autres. <laughs> mais génn nañ ci loolu ba léegi néanmoins on continue dans les dans les interdictions. ne pensez-vous pas que c'est une façon de vous écarter? oui en fait bien sur c'est-à-dire que réprimande bi am ci dëkk bi moo atteindre benn niveau boo xamante ni c'est-à-dire jamais égalé c'est-à-dire les on a bafoué toutes les euh, toutes les toutes les règles de droit tey lépp loo xamante ni yow amoon nga sañ-sañ bi tey. boo ko laajee ñu ñu ñu bañal la ko et c'est pas seulement le F24 c'est toutes les organisations aujourd'hui en tout cas toutes les organisations ki se battent pour la démocratie qui se battent pour un état de droit amul kenn koo xamante ni rek tey dina fi laaj manifestation ñu ñu autoriser la ko en tout cas on espère que pour cette fois si le préfet va revenir à de meilleurs sentiments en tout cas à la raison et autoriser cette manifestation